na ko fi ba tey. Mhm. nee bu ñu moytul pétrole bi moo ñuy sànq. Hmm? fii wax naa la ko fi ci naka rappelé ma dama la doon wax ni cest à nga. liñ fi dafa bëri comme yaakaar. mais Nigéria tey fu parce que le Nigéria non dama la bëgg a wax cest dafa am ay réalités. Mhm. et ces réalités là il faut aller au en face de ces réalités là gis nga ay ressources minière yi sa à ku ci yaakaar ne mën na fonctionner nos budget état bu normal sur dix ans. état bi du am problème c'est-à-dire que danga nga xamul lan mooy rente rente minière c'est pas fait pour ça c'est pas fait pour ça. pourtant am na pays yoo xam ne jariñ na leen. non mais parce que ni ñu ko du golfe non ni ko utiliser la. Hmm. la rente ne sert pas en fait à mais attends dama lay jox benn exemple très tu as un budget de mille cinq cent milliards. tu as des rentes euh, euh, minière de du mu tudd euh, ou pétrolière de sept cent milliards. tu les mais dans ton budget. tu arrives à un budget de deux mille deux cent milliards tu fais des investissements parce que le budget est après à s'équilibrer mmh. en fin zéro dépense euh, nu mu tudd égal recette zéro tu fais de l'investissement ces investissements là dafa demande ay entretien dafa demande tu pour augmenter des salaires syndicat yëpp a ngi wax dañuy augmenter seen ay salaires médecins ya ngi wax naan amuñu lii tu crées des hôpitaux et cetera et l'année suivante tu as une rent benn rente ba nga xamante ne parce que les les cours mondiaux ont baissé tu as une rente de 200 milliards tu as des recettes propres de 1500 milliards tu as un budget de 1700 milliards est-ce que tu vas mm-hmm. mooy danger yi c'est-à-dire yi nga yooyu ay lissage budgétaire di nga dëkk yi ko yi mu am yépp mu ñuy dox il faut ce qu'on appelle le dañuy jël recette propre yi mooy recette douanière yi ak recette fiscale yi ñu xam ne 2000 milliards la on va prendre 15 pour cent maximum des recettes des ressources naturelles dugal ko ci budget bi nga xam ne du déséquilibré budget bi mm-hmm, mm-hmm. li ci des fonds intergénérationnel lay nekk ak fonds de stabilisation et ça permet en cas de nécessité comme par exemple situation bi ñu toll ñu mënoon jël décaisser au moins cent milliards jox ko par exemple yi directement mm-hmm. pour intervenir sur le prix du <laughs> pain tu comprends et tous les Sénégalais vont en bénéficier wu. yaa ngi dégg ñu jël. noonu voilà cent milliards injecté ko ci ceeb bi yaa ngi de jël par exemple cent milliards injecté ko dans l' agriculture. Hmm, pour léegi sunu ci réew mi. voilà e c' est loolu lay jëriñ. Hmm, hmm. mais boo jëlee sept boo jëlee globalité bi yëpp quatre vingt pour cent yam nga dugg ko si budget bi. non bul bul eh, boo dawalee tuuti da nga xam ne lépp dëgg la. <laughs> rawatina pétrole njëg bi. dafay dafay yéeg di wàcc. day day varié <laughs> dem na fi ba zéro dollar. voilà c'est ça na fi ba zéro dollar donc il faudrait que ñu taxawu ak sénégalais yi wax leen di dëgg lii mën a nekk. et puis am une orientation claire. Mm -hmm. avec des idées très claires avec un échéancier clair bu net bu précis. se donner le temps de bien faire le travail pour le bien-être des Sénégalais. Uh -huh. mais ne pas aller dans la précipitation.